kat mooy yaayu moomi ak waali nga xam ne moom mooy kilifa njaboot gi ne dafa jóge voyage xat lool moo tax lii biñ ko ko waxee léegi moo tax waali teewewu ko waaye xam na premier ministre diggante ak waali xam naa it fi nga teg waali ne ki ñu ñàkk ne soxna moom i natu yar nañ ko fi ñu ko war a yare ne man mii di borom këram ne moom i jaaxalu ko benn yoon ne mu féete ko fu bari kenn du ko dégg ci leen mënoon naa tiitaroo mën a doomu coon sekk mën a tiitaroo mën a magi waali mën a tiitaroo mën la soxna si bugaan waaye kenn dégg ko ci dara fépp foo seen moom yi muy dox ñaare ko yitteel njariñu bugaan ak ndamu njabootam ci loolu rek la ne nee ñi muy liggéeya ndool ñëpp kenn ku nekk ci ñoom kenn ku nekk ci ñoom ci structure bu mu mën a doon ci structure bu mu mën a doon nag société bu mu mën a mooy société bu mu mën a doon ci limu moom dana jëflante ku ci nekk loo xam ne man nee moom it dana jëf jëflanteeg nun kenn ku nekk loo xam ne lii moom du ko yëg nee nun ñu toog fii di fa liggéey ku ci nekk seede la ca lu yàqu dana ko defar ku mer dana la dellu si lu fa jaxasoo mu gindi ko te bugaan bi te dugal loxoom ne dalay jox rek nag pour benn idée nga xam ki ma ñàkk moom fi mu toll ak fi mu ko fete woon ne président de la république woo ko démb ne masawu ko mu jàppit ni comprendre na comprendre na ne mën ngaa bañ a bokk ak nit ki xalaat mën ngaa bañ a bokk ak nit ki xalaat waaye moom yàlla def na moo njaboote ñëpp def na Sall kon képp ku ci ci kon képp ku ci toll ci diggante warteefam warteefam mooy massawu la mooy mooy ak yow tan wa ne mi ngi ko woo. démb jamono bi ñuy dugg ci armee ne mi ngi jamono bi ñuy dugg ci armeel yi. armeel yoof. armeel yi yoof. démb kenn mënu foo yegg. ne démb kenn mënut a yegg ci armeel yi. bi ma président di woo maa ngi maa ngi wàcc ci muru BCEAO bi dox jëm ci armeel yi. ne bi ko pre ko président la bi di woo mi ngi wàcc ci BCEAO bi dox jëm ci armeel yi. parce que oto bi mënul ne oto bi mënul yegg. mu di ko wax président ni ko kii fi jóge daal yàlla day ñëw ak dogalam yàlla day ñëw naag dogalam li tax sax ma bëgg ci insister li tax sax ma bëgg ci insister parce que dama la gis nga takk na ne dama gis nga takk na insigne insigne bu octobre rose bu octobre rose octobre rose octobre li ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy mooy xeex cancer soxna si mais soxna si. di Momi. depuis 9 ans. depuis 9 ans. elle a lutté farouchement. elle a lutté farouchement. contre cette maladie. contre cette maladie. dem nañu ba yàlla def ci tawfeex. nee dem nañu ba yalla def ci tawfiq. ci ñetti at yu jëk yi. ci ñetti at yu njëkk yi. waaye juróom benn weer jàpp juróom ñaari weer. waaye juróom benn weer jàpp juróom ñaari yu mujj yi. le récidive. le récidive. ak vitesse woo xam ne kenn xamul fu mu yem ba suñu borom def li mu def ma leen di ñaan yéen ma leen di ñaan yéen ci doole ji leen suñu borom jox ci xam-xam bi ci kattan bi ñu def bépp effort ñu def bépp effort ba jigéen ba jigéen ci réew mi du ma ne dootul dee ci cancer waaye mën nañ koo wàññi waaye mën nañ koo wàññi bu baax a baax te bir na ko ni cancer mi ngi rey ñu bari ci réew mi kon yóbbante boobu laa lay yóbbante dénku lay doon sax na xam na premier ministre sa engagement démb ci jigéen ñi kon tey jii lii da ko bëgg a dëxëñ rek nga boole ko ci projet yi nga xam ni état lu mu song mën na daaneel kon maa ngi la koy dénk suñu diggante nit respect mutuel nit la ak nit ku wegante effectivement 2006 ou 2007 2006 wala 2007 sur le plan professionnel loolu nga suuxat ko ba ci at yu bari ku ne xam na tolluwaayu d'accord ci réew mi jàpp na ni yoon wi d'accord tracé bokk na ci encouragement li tax d'accord yegg ci yoon woowu la ci des nag mooy di la sant di sant ministre yi nga àndal yëpp kenn ku nekk ci ñoom koo yónni ne kenn ku nekk ci ñoom koo yónni woon mu doy kenn ku nekk ci ñoom ku président yónni woon kenn ku nekk ci ñoom ku président woon doy na député yi ngeen àndal député ngeen àndal ci ñoom kenn ku nekk ku président yónni woon doy na waaye bu ngeen booloo yéen ñëpp waaye bu booloo yéen ñëpp nag ñëw ñëw ngir suma jëm ngir jëmmam ngir njabootu Thione Seck ngir defal ma ci lii dal sama kaw kon dama leen di sant bu baax a baax di ñaan suñu borom mi nga xam ni moo yor lépp yàlla na leen defal tànk yiw li ngeen yéene am tànk yooyu yàlla na ko yàlla mottali di sant bu baax ci turu famille bi di leen gërëm allahuma salli ala sayyidina Muhammad ñu def ñaan Cheikh Assane Alassane defal ñaan maître maître